salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey nag dañuy ñëw indil leen waxtaanu xar ku gént ñu jox kom xar kooku dana nekk kilifa gu lay digmal dana tekkit alal gént war am kuy dana tekki kilifa gooy not maanaam kilifa goo xam ne eh, da lay déggal ba la jariñ lu baree bari ku gént yanu ko maanaam gént yanu ab gàtt rawatina yanu kuy kooku ba tey alali kilifa guñu lay dénk la moy gént yanu ko ku gént xar ci boppam war ko maanaam xar mi moo ko war loolu dana tekki kilifa gu lay not waaw kilifa goo xam ne da lay not ba tey dana nekk sara sarax boo xam ne dañ la koo teg nga war koo génne maanaam sey mbir balaa jag nga génne sarax boobu am na ñoo xam ne noonu noonu la leen di dikkee Euh, ku gént di rendi am gàtt rendi gi masalan comme tabaski gi ñu génn nga gént di rendi am tabaski loolu ñàqare luy deñ la coono buy jeex la dana tekkit bu fekkoon na koo xam ne tasxiir la ijaaba la dana tekkit sarax boo war a def sarax boo xam ne boo ko génnee sa aajo faju ku gént gis sa biir kar xar mu ñor xomm ñu teg ko loolu dana tekki naqar ku dana tekkit ñaare ku fay faatu mooy xar mu ñor ñu teg ci sa biir kër wala nga gis ko ci sa biir kër ku gént di togg yàpp xar loolu tawat la ñaare dana nekk tawat dana nekk naqar ku gént ñu jox ko xar yu baree bari maanaam jox ko géttub xar loolu dana tekki alal dana tekki ak ubbeeku dana tekki alal dana tekki ak ubbeeku ba tey koo xam ne day faral dafa bëgg di listixaar wala xel me xol bi yëpp nekk ci dugg ab sëy bu dee góor la bu dee jigéen la bu dee jigéen mu gént ñu war ñu wan ko xar mu góor dañ ko xamal ne ku baax la bu dee jigéen bu dee góor mooy listixaar bëgg soxna gént gis xar mu jigéen dañ koy xamal ne soxna si soxna su baax la soxna su yiw la waaw ku gént di rendi ab gàtt ci doqam maanaam ci ginnaaw gi ci baat bi ci ginnaaw loolu kuy mooy yàlla la benn wala muy def ci alalam lu daganut waaw ku gént ab gàttam genn këram gént ab gàttam genn këram rawatina bu fekkee dafa nekk di xuloog jëkkëram wala mu xuloog am mu tëdd guddi gént gàtt ab gàtt génn këram loolu mën naa nekk ak tàggoo loolu mën naa nekk ak tàggoo mën naa nekk alal yuy génn ci loxoom kon mbokk yi daal ci tënk loolu lañ leen indiloon ci lu jëm ci wàllu am xar am xaaf ak gàtt li ci ëpp yiw la koom la alal ju lew la ak ubbiku la ku gént nag ñu dénk la ba tey géttub gàtt loolu dana nekk ak pal dana nekk ak njiite moo moom itamit lu baax la kon ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci li koy dundal walaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu